asalaamaaleykum maa ngi lay nuyu di la sant di gërëm di gërëm sa mbokk yi nga àndal yëpp voilà man maa ngi tudd Ibrahima dëkk Dakar Médina ñu gën ma xam si xidma nekk xale bu juddoo Dakar nekk doomu Lebu tamit voilà sama parcours nag dama lay commencer si suuf ba ci kaw à ba ma yóbbu daara ma nekkoon Saalum si daara Sëñ Saalim ba ma maa ngi toll si fukki juróom ñaar 18 ans

loolu nag man ba may nekk tànk di am huit ans ma ko daan woowee fële si daara ja dama si daan xeex nag mais xaw ma lu mu doon dama si doon xeex par la suite la dem laajte ñu nettali ma expliqué ma fu ñu ko woowee nan waroo ko gëmee moo tax bi ma ñibbisee sama entreprise bu ma amee possibilité entreprise rek xidma laa ko njëkk tuddee mhm. voilà xidma maa ngi gën a basé wu nag si yére góor tenue traditionnelle lépp laa ñëw comprendre nga mais si pour l'instant nii si yi laa gën a basé wu si yëre góor yi tenue africain yi chemise yi ak costume africain yi yi ensemble lay nekk quoi lépp lu si bëgg nag am naa ko damay ñëw tamit jigéen ñi mais si beneen phase par rapport ak jigéen par rapport jigéen Sénégal ni ñu ko xamee tay baas robe lañ xam mais man dama ñëw si beneen facette dama leen di ñëwal ay super 100 ay bas large ay chemise ay veste dama leen koy ñawal aussi voilà loolu daal mooy loolu laay liggéey daal waaw ci loolu laa mhm. waaw xidma boo seetloo sax difficulté moo ko créé pour mu leer quoi difficulté moo ko créé bi may commencé métier bi nekk naa ci ba commencé si am ay wécc bi sew sewaan te xidma amagul créé guñ ko quoi mais boo seetloo man Covid moo formé Covid bi moo ma formé Covid bi laa xool difficulté yu bëri toog di xoolee gisoo dara loo liggéey ma xëy suba toog sama benn cousin ne ko pourquoi pas ma créé sama marque tuddee ko Xidma yàlla mën na dogal def ci tawféex wax dëgg yàlla nag sama propre moyen laa jógee à vingt cinq mille francs laa jógee vingt cinq mille francs yi pour mu moo la ne vingt cinq mille francs dix mille francs yi dama ko fay ki ma créé marque bi quinze mille ñaw bi maa ko sama main d'œuvre bopp pare jaay ko mu récolté ma soixante quinze mille franc léegi par la suite day waxtaan di dem dugg di génn ba affaire bi mi ngi toll foofu ba ba mu ba mu toll nii daal voilà. waaw yi nag am naa ko mais soutien famille la comprendre nga sama benn grande sœur ñu wax soxna muslim ñoo bokk ndey ak baay nag. wax dëgg yàlla difficulté yi ma jot a si génn mais à part ça amul beneen soutien quoi. waaw gis naa ñu gis naa nag ñu si gis seen bopp xam nga moom da ngay wax li sa am mais gis naa ñi nga xam ne gis nañ si seen bopp trop. maa ngi ñaan yàlla bokk si ñooñu mais pour l'instant maa ngi dawandi pour l'instant maa ngi bu yàlla baax mais gis naa ne daal ñi ngi góorgóorlu nànk-nànk parce que am na am na ñoo xam ne ñu ngi si gis seen bopp daal voilà loolu affaire waaw di ko wax di woo ñëpp si jeunes yëpp ñu dugg si metti na nag di nga toog bëgg a lekk doo am loo lekk di nga bëgg a def sa transport doo am loo defee transport mais nag bu la taxee bàyyi rek xamale naroo dem metti na mais yaakaar naa ne yàgg-yàgg day baax incha allah jeunes yëpp maa ngi ñu ñoo nekk si gëm naa ne loolu moo ñu mën a jëmale kanam dëkk bi yëpp nag parce que li nga gis fii nii yëpp koo si laaj lu metti la daj pour mu taxaw fii pour ñëw fii voilà yaakaar naa ne bu ñu demee au fur dina dem ba gën nooy daal voilà di conseiller yëpp ñu góorgóorlu xam nga ku si sa wërsëg nekk fii nga toog góorgóorlu liggéey donc fi nekk naan bu kenn dem bu kenn ñëw loolu moom détaillé wu ma si dugg mais na ñëpp góorgóorlu loo am baax loo am doyloo sa bopp doyloo sa borom voilà loolu laa gëm